dafa mel ne enregistrement yi am na am na fuñ ko kii de këyit moom macha waaw am na am fuñ ko teg la commission d'examen et de validation mhm. euh, pour les entreprises de presse appel nag association de la presse en ligne bi Ali Lissa Faye Lissa il faut mu ñëw fi sax mhm. incha allah wax na ci àdduna ci euh, kilifa yi ñoom dañoo teg cette commission pour réguler davantage euh, li nga xam ni la presse sénégalaise en général et à juste titre. Mm. parce que petit xoo bi bari na lol, lool lool compliqué na te egg na niveau boo xam De wax l'église yàlla euh, léeg-léeg ñu réeroo xam du ñu xam kan moo la kan ñu xam kan moo def ou ku deful du ñu xam ci bokk ka ci mm-hmm. bokk donc lu ni mel foog ñu ko sauf que li nga la pression en ligne ñu wax surtout Ibrahima Faye lii sa moo il faut que ñu il faut plus d'implication que ce soit à la fois inclusif et incisif pour mieux être incisif mhm. moo di ne loo xam ne yaa structuré concerné ña mu concerné Par na ñu boole leen ci décision yi discussion avec la ci donc euh, commission bon, nga ministre de l'information, de la communication numérique dans moo ko teg di monsieur Sall Aliou euh, ñoom ñoom Ibrahim liñ ci xaw a regretté te di ci addu impression bini am ci que dafa mel ni discrétionnaire loo xam ministre bi moy ñëw mom avec ses équipes ne diw bokk na diw bokkul diw modi diw doonu ko euh, naam am ay critères yu mu laaj et tout et maintenant foofu y a y a une chose c'est comme nga fekk euh, ñi nga xam dañuy def lamb nga ne dama leen di organiser lamb hmm bolé leen ci mm-hmm. yalla deug la bëgg bolé leen ci tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi exactement mm -hmm. donc bolé leen ci pour que ñu gis ci seen bop maintenant ñom sen ay limites fa muy yow say limite fa mu c'est mm. capital il faut pas mu nekk xam ministère bi day ñew rek taxaw ne bon affaire bi ni lay démé dorénavant parce que après tout euh, secteur le boo xam il faut l'organiser il faut structurer mais il faut que ñom ñu ñew né yeen nga nga da leen di wo sax né leen yeen ana ngeen ñu ne ñu ngi ni mm-hmm. ñom ci seen bop ñu ne la ñi bokku ci ñun mm-hmm wala ki bokkul ci ñun. Mhm. bu ko défé yow nga xam ni nga taxawé nga arbitré. mais ngir réguler presse bi dañ dugaloon li nga xamantane ne moo di carte nationale de presse. euh toftal nañ ci tamit ne site yi yépp ku koy jiital le code le code de la presse. c'est ça ku koy jiital il faut nga am 10 ans d'expérience affaire yooyu. mais dafa mel ni ba tey ci doxalin bi yooyu yépp respecté guñ ko. non à à un moment donné à un moment donné il y a 3 4 ans 5 ans ci ginnaaw y a eu la ruée. Mhm. YouTube day fay ñep feux. Hmm. dañ nek ci dëkk bo xamni nit ñi dañu. ñu amé baxna. les gens cherchent à manger. Mhm. ci affaire bi mettiwul de. ay titres racoleurs. Mettiwul les mhm. gens quelqu'un te dit attends un y a waxuma sax ñooñu mais quand un patron de presse kilifa. bu ñu ràññee ci dëkk bi yor média bu ngande ñep toog mu ne mu ne eh bay asal c'est la médiocrité qui me paye. dégg nga c'est la médiocrité qui me paye ça veut dire que pour ma doxlé il faut que may teg yëfu dof hmm. il faut que may wane yëfu dof pour nit ñi ñëw parce que nit ñi loolu ñu bëgg hmm. regarde le TikTok sénégalais hmm. compare le TikTok japonais et chinois asiatique chinois si tu veux ak surtout africain et sénégalais ka foo reex reetaan live jaay taar wanewu mel ni dof doftu c'est terrible. mais nan dire def population bi ci contenus c'est des contenus qui apporter quelque chose sur le plan cognitif. il faut ça <laughs> man bala nga jàngal luma hmm. problème hmm. l'économie à la base de tout les plus fi nguur gi hmm. économie. regarde nos supports télé nos supports le programme émission sur l'économie defal ko bande annonce rek ko. Hmm. oui nous organisons organiser euh, Rew. ak à côté Nous Hol. Nous ca Rew Rew ga la économie c'est à nous. Hmm. maintenant nous, nan la def ba tal loolu. Hmm. nan la def il faut que psychiquement je sois préparé. Mm. Il faut que je dépasse le besoin primaire, les besoins primaires. Il faut que ma me, me, génn ci pyramide de boobu nga xam ni que dama damaa nekk ci ci na mu tuddati les euh, nekk ci soxla ci building projection perspective Nous m'a def ba tu vois un peu. Mm -hmm. je ne vis pas au jour le jour. oui mm -hmm. mais je vis en en provision en provision xel dal Ce qu'on a fait, question économique bi ma ah, ses revenus. revenus, y yi nga daan am sur l'année boo xefee dana wàññeeku parce que je ko tal dana ma ko déglu dana ma ci bàyyi xel donc la presse sénégalaise il faut la structurer mhm. mais cette presse là ni rire dem ci surtout ces dernières années l'autre tax riiruñu dem ci création dans d'entreprise de presse tabloïde mm. le format A3 où tu tires imprimes tu vas acheter le papier euh, mhm. bateau bi indi papier ci jamono bañu nek ñun le matin. Mhm. ci jamono Baba Tandian da daan lijeenti papier papier. Mhm. pour papier bi ñew day jaar ci bato bi ñew papier buñ né papier amna buñu toggé papier amul ñu daw wuti papier légui tout ça c'est dépassé. Mhm. c'est la la presse en ligne bu njëkk da nga daan jox les vendeurs à la criée wala agence de distribution ADP. pour ñu jaay ce journal. légui lool yépp journal sax jaratul léegi xam lu am. instantané. sama téléphone lay tok en live streaming ça passe te damay encaisser. Mm.

waxtaan wi mën a yemb dañuy des ci wàllum économie mhm. ndax nee nañu l'argent est le nerf de la guerre waaye ci kaw économie boobu gis naa ne fële ca Casamance mhm. euh, lii di euh, la plateforme des acteurs économiques mhm. daal dinañ koy jëmmal exact euh, ñoom Ibrahima Diallo ñoo ko jiite waa Bignona waa Kolda waa Sédhiou ñoo ñoo lëkkaloo et et tu sais dans les régions Sénégal fii il se passe d'excellentes choses méconnues mm. yoo xam dafa am mais ça passe inaperçu pour nga xam ci dara mën nga jàpp wal fajari ñu am lu la ci wan en terme de revendication mhm. mais RTS su fekkee da nga kaa suivre même RTS bu njëkk ba ah, mhm. su fekkee da nga leen di suivre en terme de contenu il te donne plein de choses sur les régions ça c'est sûr mais ça intéresse qui man sama élément jàll na rek dinaa toog xool télé bi mu mhm. jàll bu sama élément jàll ne pare naa ci benn ñaareel bi li nga xam ne mu ngi doon am ca jamono boobu léegi nag bu ñëwee ba ci jamono bi gars yi ne dañuy def plateforme économique ku xam Casamance xam ni maam Casamance la fa ne ci teraanga kenn xamul nu mu toll. Mhm. xam nga mhm. mhm. zircon diamant deuxième main. mu nga fess del Casamance. machallah pétrole. gaz. ak lenen ak lenen ak leneen. lii meññ nag bo ci Kédougou région de Kédougou bo ci est bi ak sud bi nga ne ak li comme tu dis. agriculture nga ne or. yépp soxna ci fess del fofu am dox am mangrove. doy. ngi a doy de mer. am jant. waaw waaw léegi loolu garab yi fa. fa del il faut juste de la structuration. Hmm. mais bu ñu delloo ci ginnaaw lan lan la nasaraan def nasaraan. Hmm. dafa xool zone bi gën a baax ci Sénégal ci wàllu meññeef. Hmm. loo xam ni fii moom jëmbat mu sax léegi ñu jaay am lépp mu fa problème. créer fa conditionnalité y a yenn fonctionnaires yi nekkoon fii ñu jël leen yóbbu leen fa ñooñu ñëw accaparer terre yi hmm. ñële frustré révolte am mu jur coow tubaab ruube hmm. jaxasoo am mu saccagé région ba pour lan parce que nee na bu doxee rek dëkk bi dox kon bu mu dox il faut que aujourd'hui si les économistes de la région hmm. se réunissent pour def cette plateforme là c'est une excellente Baye plateforme ci lan la

que sous Macky Sall, pendant 12 ans, la Casamas a été sous la calme. Mhm. te loolu yàlla na wéy. ak suñu collaboration ak Gambie aussi. a na oui mhm. avec la Gambie yàlla na wéy yàlla bu fa coow amati. comme Sénégal Gambie et toute la sous-région. Mhm. ak partout dans le monde. mais wax rek faut vous, soxna si. Euh, Casamance mais Casamance mën na raw Dubaï. xam nga raw Dubaï. te du lenn lu parce que Casamance jafe-jafe bi fa am yëpp économie la. waaw moo tax cette plateforme vient à son heure. dund. Mhm. su ma amul lu ma dundee. day métti fak yat rek moom bu dundul yat la maa fàq nu raak. Mm. mooy agression Dakar. Mhm. mooy fi xaj sàcc kii biir le ventre. dañuy euh, génn tuuti ci économie. daal di demaat euh, ci sa beneen plat préféré. politique faaw ñu waxtaanee politique xam naa tey mooy nekk sa dessert ndax gis naa daal ne ci liste yi hmm. am na ab soxna hmm. soxna bi daal tuut bi moo ma xaw a jaaxal tuuti hmm. Ousmane Sonko de lu tudd ah Ousmane Sonko lu tudd jigéen la euh, bu bu dee Del Malick am na photo bi sax doon na la gën a neex nga xam ne kii jigéen la kon ñaari Ousmane Sonko ñu ngi yeewu ci réew bu góor ak bu jigéen <laughs> si Ousmane Sonko jigen la de. est enseignante de formation d'accord nek euh, ci une de de une famille de six personnes. MashaAllah ñom wax ci mhm. ay am nga sixième. Mhm. Euh, hmm. bonheur à la famille ça voilà donc ça rentre un peu dans cette logique là. Mhm. mu nek ko xamni ni ku ñu ràññee la ci parti bi depuis 2016. nek ku ku ku brave une brave dame bo xamni euh nit ñi xam nañu ko. kon deugantane du surnom. ah na la del Malick del wan ñu photo ndaw si ñu xol ko nga xol, nga xamni <laughs> nga naan deugantane. xam nga yenn say da ngay da ngay da ngay sopu nit daal di duppee nit ki sa bop. <laughs> mais mom nonu la tuddu. c'est le hasard ah. ndeysaan mais hasard amul. Mhm. yàlla lu mu def am na am na lu tax. le waajo doon wax. ana ngeen een ee ee yéen yéen waa kër Macky Sall yooyu nga xam ne bugg leen gis Ousmane Sonko bugg leen ko dégg am na ba jigéen nag léegi nag <laughs> am na ba jigéen nag góor am na jigéen am na lii mais c'est ça la vie. Mm. Dieu est Dieu est puissant. Mm. moo day def lu ko neex. maa la wax léegi. léegi ba pare boole leen

xam dañ ne dañuy def recours contre Ousmane Sonko parce que bok hmm ci waaw gis naa ñu dugal kii de recours. ba jox gref après après ci comme ñun dañuy dund ci démocratie ñu hmm. ah oui ils ont le droit est-ce qu'ils veulent le faire ils vont le faire mais non du ba. Hmm. du pare non du bu sa pare. non kay leen lay am yow yaakaar pareel yow waaye moom parewul du pare motax il faut que ce régime là soit vigilant.

biyem bële rëcc perte na ko perte na ko. Mhm. mu foog mu voilà. waaw dinañ dinañ seet nu ñu def ba jokkook moom. mbokk